البديع rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu sante yàlla sant Seydina Mohamed sant sëñ Tuubaa ak maam Seera Fall sant ki nga xam ne moo waral ñëw bi fii tey ñu ñëw fii ci Daaru Salaam Belki ñuy door a wàcc léegi ni ànd suñ jëwrin muy sëñ mataar Faye dañuy ubbi rek waaye mooy wax lépp li fi nekk kon ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp mbooloo mi ñu àndal ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax di jox sëñ bi nag mu leeralal ñu kàddu yi li fi xew yëpp ak door a wàcc bi léegi lañ door a yegg si nii jóge dakaar kon sëñ Matar Faye asalaamaaleykum bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh ah, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, di jaa defal sëriñ Touba Xaadimu Rasul ah, di sant suñu buntu ci Serigne Touba mooy Seydina Aliou Niang Murid moom sëñ Cheikh Ndigal Sène Eh, xana rek ño xamni ni wax deug yalla dañu jóge ba Dakar ah eh, muy sëñ Matar Fay ah wax deug yalla bi wax deug samp ñu ci Dakar ah ma ànd ak Dakar yep cheikh yi nga xamni ño nek Dakar wax deug ñom ñëpp la andal liko ko ci ñom sëñ Ablaye Thiam ñom sëñ Mustafa Mbay ñom sëñ Assane Ning ñom sëñ Ousmane Nourou Mousnaax wax deug yalla ñom ñëpp na andal ah wax deug yalla ñu ñew am wax dëgg yàlla matériel boo xam ne sëñ bi da koo wutaloon ah, sëñ Cheikh Ndigal Sène te Chine muy photo yi ngeen di gis wax dëgg yàlla Chine la jóge ba mu wàccee wax dëgg yàlla a ah, sëñ bi jox ñu ndigal ah nañ ko jël wa indil ko ko wax dëgg yàlla boo ñun waa dakaar egg si nañ nii wax dëgg yàlla a ah fas yéene jébbal sëriñ se eh, Seydina Aliou ah matériel bi wax dëgg yàlla muy ay sièges yoo xam ne nii a ah, wax dëgg sièges yoo xam ne nii buuru ala arab yi. mom lañuy mom lañuy tok mom toog moom la Seydina Ali Murid Sadiq ah, wutal sëñ Cheikh Ndigal sen bo wax deug yalla indi nañ ko ni fas ko koo jëbal sëriñ bi ah, ànd ak waa Dakar yëpp wax deug yalla di ñaan wax deug yalla lolu ah yalla nañ ci yalla ah, defal ngeenel bo xam ni lepp luñ ci bëgg liggéeyal Ali ñu Murid Sadiq rek ñu liggéeyal ko ko ma an ci wa Dakar yëpp wax deug yalla kon alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ag ci sëriñ bi bismillah inna wallahi allahumma tawfiq illa billah alaykum wa adina ñoo ngi leen waat bax di leen siyaare ex nañ fi nak ci daru salam Belki moy dëkk bi nga xamanteni ni la sang bu tedd bi nga xamoon lañu fekk ci biir moy Cheikh ali yun jambal islam samsu di mu jahibul akbar sangam ba sëñ Cheikh Ndigal sen war fe ñew euh, di ko di jël ci ndogam moy lu reuy lu mag lo xamne lolu xamna xam mata dina ko kanam ñoo ngi ni ànd ak mu ànd ak cheikh yi jëwriñ yëpp jëwriñ euh, sëñ di di jëwriñ ji ak mbolem cheikh yépp ngi ni ak donga yépp ngi ni ñu mbolem matériel yi nga xamanteni ni bi ci xiram ci bëggam lu baax ndax garaatu murid saadix bi nga xamante ni takkal nañ ko ko waxtu wu ci nekk rek muy wane ne murid saadix la nekk gi mu nekk murid saadix tax na mboolem siis yi nga xam xamante ni gis na ne buur yi buur yi buur yi buur buur yi moom la ñu toog mu dem fàggul ko sëriñ bi commandé ko à Siin ba mu ñëw jaar ci jëwriñam sëñ Maxtaar mu jëlee ko sow di ko indaat fii loolu day wane ne euh, Mawlana Cheikh Seydina Aliyun jàmbaari lislaam la garaatu murid saadix bi ñu ko takkal nekku rek lu mu takk gàlloo ko waaye da koy jëfe di ko di ko waxee nga xam ne lamp yii nga xamante ni moom la def ci jumaa yi sangam ba nga xam te ni fu waay tollu rek booy ñëw boo xamul sax njàmbur lamp boobu moo lay gindi loolu lépp day wane pëstéefam ak xam jamonoom ak ak a liggéey kon noo ñaan suñu borom fayal na ko siyaare bi ñu ko fas yéene siyaare ji yàlla nañu ko ci fekk jàmm te te buñ ko nuyoo rek tàggoog bàkkaar buñ ko nuyoo rek ngërëm topp nu ay leer topp ay xéewlu ay topp nu ba ca kanam li ci des lépp suñu waxtaan dina ko yegg incha allah mbokki taalibe yi salaamaaleykum wa rahmatulah